internetu Allô Sénégal dal nag jàmm mu mel ne nag mbégteeg bànneex gane si na ñi nga xam ne ñoom ñooy famille Diop Khass information bi ñu gane si nag di bànneex bu rëy rëy rëy si ñi nga xam ne ñoom ñooy famille Diop Khass jugee rek ci ki nga xam ne moom mooy sumbulu bàccili sumbulu bàccili borom ngoonal sumbulu bàccili borom wiiri wiiri sumbulu moomu nag di madame Diop Khass moom rek leen xam le ne dafa am doom. waawa waaw waaw moom Soumboulou Bathily day doon bàcc Bathily borom mariage bu neex bi Soumboulou Bathily boroom million yu bëri yi macha allah moom mi nga xam ne nag Diop Khass takk na ko sagal ko sigil ko ci kanamu ñëpp tey nag bébé Diop Khass la wax rek nag gane si na àdduna di ko ñaanal rek mu dund tabarke internetu Allô Sénégal xibaar bi leen leen doon dégtal bu leen fàtte abonné pour jot suñu yeneen xibaar.